temps yi dañ doon def Miss Sénégal 2020 euh, select bi nga xam ne def nañ ko ci ñi nga xam ne ñoo doon participer yow ban jàngat nga ci am bon man que Miss bi ñu jël war nañ ko jël ki jël première elle l'a vraiment mérité et gis naa ci réseau sociaux yi en tout cas lu nekk ñu ko koy yàq di teg lu nekk ci deram e moi je trouve que c'est pas normal parce que dañ ko jël pour man ñi ko sélectionné dañ ko sélectionné ci teint naturel sélectionné ko en tant que koo xamante ni elle est purement africaine euh, bi ma gisee réaction yi nag man mi sax daf ma jaaxal car man mi teint sama teint naturel dama ko maintenir et j'ai trouvé que l'a vraiment mérité. je pense que loolu rafetul parce que ki ñu élire Miss Sénégal c'est une sénégalaise comme ñun suñu suñu mbokk la suñu dëkk la dëkk je pense que dañ ko war a encourager vu que beauté africaine le mettre en valeur parce que elle est de teint noir je pense que dañ ko waroon encourager parce que ki ma gis elle est naturelle. Mhm. Euh, Sénégalais yi dañoo mën a critiquer rek mais miss bi man gisuma ci lu lu kii quoi miss bi moom macha allah rafet na en plus elle reflète la beauté sénégalaise bon gis naa ne en plus xëy na moment buñ ko photo du moment buñ ko waroon a photo parce que ku nekk tamit booy jooy sa kanam dafay déformé wu donc euh, par conséquent gis naa ne daal miss bi amul sikki sàkk rafet na en plus euh, région de Fatick la jógee je suis fatickoise bien vrai que du loolu moo tax ma koy. moo koy faral mais dafa rafet elle benn belle macha allah. bon man sama part personnel mooy moom elle a osé parce que am na ñu bari ñoo xamante ne ñu ngi fi osé wu ñu dem léegi moom nag posé na candidature am elle a gagné heureusement donc na pourquoi ñuy nekk fii di ko critiquer par rapport ak je sais pas beauté teint yooyu noonu tout yëpp amul importance ci man. tey ban ban ban jàngat nga am bi nga gisee critique yi nga xam ne ñu ko doon def di ci wax maanaam euh, peut-être dafa ñaaw wala ban jàngat nga ci am. bon jàngat bi ma ci am mooy sénégalais yi maintenant dañoo mun naa wax ni sax dañoo génn seen xeet parce que ins bi ku diwuwul wala nga teg leneen loo xamante ni c'est pas naturel rek duñ la considérer foog naa instant yi seen mentalité foofu la toll bi ma gisee critique yi vraiment. ñaawul naa ko trop nag. waa xëy na peut-être si photo bi la dañ ko photo buñ ko photo wuñ ko au bon moment quoi moo tax mais à part ça moom je la trouve belle. ah ñu bàyyi di ko critiquer rek te xam ne ku nekk aussi man nga am bés boobu ñu jël la au mauvais moment après te du la neex aussi mais à part ça moom nañ ko bàyyi di ko critiquer quoi parce que bu dul daa tamit ñun ay sénégalais ay sénégalais ñun ñëpp te dañuy naan Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar donc. Euh, mañ bàyyi critiquer quoi te ku nekk jéem koo jëlee sa bopp bu nekkoon sa bopp euh, du la neex. ñoom ñu arrêté parce que ñoom euh, osé wu ñu dévoilé wu mais moom euh, moom am na audace bi nekk ci té ci télé bi genre wax yooyu noonu voilà. parce que moom kiiwul niiwul teewam osé na ose na wane boppam parce que auparavant dañ daan gis ne mii si bari Sénégal te. de teint clair la ñuy am mais moom dafa dafa gëm boppam voilà gëm lim doon. nous sommes des africaine ñu ñëpp der bu ñuul lañ waroon yor tey jii soo demee Europe peut-être ñoom seen der bu xees moom lañu yor mooy seen nationalité te dañ ci fier kon ñun tamit dañoo war a fier ci suñ der bu ñuul bi. te tey jii fii nii élection mi Sénégal wala tuñ fi jël sax koo xamante ni dafa xeesal wala koo xamante ni teewam naturelul lii nii pour man seen normal te dafa war a continuer waruñ fi woon sax di sélectionner ñoo xamante ni dañoo diwu du genre wala leneen en tout cas daal Sénégalais yi mënuma leen comprendre man vraiment. mais pour pourquoi muy xeesal jaru muy xeesal non non je vois pas ça. si la vraie femme africaine. Mhm. nit yu njëkk yi lay refléter di refléter purement africanité bi mu doon parce qu'il est fier mën nañ tamit am naa beneen conception boo xamante ne dama ko si doon parce que tey jii euh, Miss bi mi ngi jóge ba Fatick am ñoo xamante ni Thiès lañ jóge am ñoo xamante ni ñu ngi jóge ci yeneen région ci Sénégal comprendre nga dañ leen di jéem a méngaleeg ñi nga xamante ne nii ñoo dëkk dakaar alors que mënul nekk benn parce que mën naa ni climat bi du benn te aussi ndox yi ñuy sangoo nekkul benn loolu tamit waroon nañ ko prendre en compte donc euh, ins ku dépigmenté wul rek yaakaar naa bokkoo ci sénégalais yi foog naa ñoom instant yi foofu la seen mentalité toll. teint noir bi moom je suis avec avec ça. oui je suis vraiment satisfaite te en tout cas ñoo bëgg dëkk mën ak moom Fatick en tout cas non non. même pas su dëkkoon Dakar mel ni tamit yor teint noir parce que su dul woon loolu man sama teint noir dama koy changé damay ànd ak ñu bëri ñu changé seen teint dépigmenté wu et tout te pourtant man loolu dugguma ci donc je suis fière